bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi leen di jéggalu tey nuyoo ci turu xalifa général de Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall di ko jottali ab siyaareem ci Cheikh Mamadul Muntaqa Mbakke xaadimu rasulillah ibn Cheikh Mamadul Basir di siyaare it nag Cheikh Mamadul Mahfous ibnu soxna may ibnu xaadimal mustafa ak magam ju baax ji soxna baali ak mbokki mbakkeem yépp di xam le ni bis bi rëy na ci seex jëm sëriñ seex jëmb faal ak njabootam gii mu yebal muy rakk di doom di sët di jarbaat di taalibe ndax wax na ni ku toll ni Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ibrahima ëtti woowuloon lu dul moom nga dem bay def ci moom lu bàyyi ko ci sa way juróom mag wa te màgg lool di dundal bis boo xam ni taawilaan ak tara du dun bari na ci muy laylatul xadri ñu jagale nag Cheikh Ahmadou maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridine ci bis bi ñu def ngir waaje na ko bis bu màgg boobu xam naa koy def dara lu Sëriñ Tuubaa fonkoon di ko waajale Cheikh Ibrahima Fall war ngaa xam ne dina mel ni nga bëgg ndax Cheikh Ibrahima daa doonul kenn dong Sëriñ Saalihu Mbakke radiyallaahu taala anhu dadaa wax ne bàyyi Cheikh ak ko tedd ke du ñu ñaar kenn ke Sëriñ Saalihu Mbakke ko wax te li sëriñ bi wax léegi ci yërmande jooju ak xéewal yi ci ëppam la ko Sëriñ Tuubaa defoon bu duloon Cheikh Ibra kenn du ko mus Cheikh Ibra rek regaan seng yaayu Sëriñ Tuubaa xam ni mu koy toppe ba mbuus mi bënn mbaa ñu tekki ko yërmande ji daal di feeñ dikk bi mu dikkee nag ni mu def moom Cheikh Ibrahima Fall ci nu ñuy toppe ku mel ni sëriñ Touba ba mën a am ci moom lu mel ni li mu am ba tudd Baabul diina du lu ñu réunion duñu lu ñu bindi leetar defuñu ko ci télé kenn jàngalewu ko ci benn école te Cheikh Ibra mooy Baabul Muridiina lu yàlla dogal la nit ñi nangu ko wax te duñu ko sañ a bañ ñu nangoo ko ci seeni xol di ko jëfandikoo nit ñuy toppe Serigne Touba ba mën koo jariñoo Cheikh Ibra ko kereyal boppam kenn jàngalu ko ko ko dul yàlla boromam Serigne Touba bind ko di ko jàngale ngir bëgg nit ñi xam kan mooma am na ko wax léegi ni Cheikh Ibra ko xamoon Serigne Touba la waaye Serigne Touba ko xamoon Cheikh Ibrahima ndax jàngaloo na nit ñi ci moom ba tàyyi ngir ñu xam kii mooy kan ciw defee nam Cheikh Modou Falilou Fall mooma ni te bam ma koy wax ñii ma àndal ñu nga fa toogoon muy weeru koor ndab yi dafa taaje mu ni ma waxal ak murit yi ndab yi door dem ci seen borom mu jël wenn bayit ci muxaddimaat wax ko dama ne ñokket ni kàllaami wa niyaati wa fixli tawajaat ila man kafaani suu wa durra wa sakka sëriñ mu daamin tafaal moo ma ni ma sëñ baara ma ne ko faal mu ne ma mbindum ko tedd ka la Cheikh Ibra yi jëfe jëfi Cheikh la la ko tedd kiy bind xoolal nag yéen ñi jàng xam ngeen ko ma firi ko bokk ci ñi mel ni man nit yett képp la am amul lu ko ëpp li ngay wax ak li nga jëf ak li nga yéene te mënoo ko li ñuy wax te mu am njariñ ku dul yonant bi ci mbindee fi Serigne Touba la ëppi wax gën la bari gën la ëpp njariñ li ñuy jëf fa mu doon jëfe kenn mënul asaka ja li ñu yéene ci njariñal doomu aadama bay wax irham jëme alwara kenn mësu ko cee fekk sëñ Tuubaa lépp laa dank benn yoon jox ko yonant bi addiya ilaa man kafaani kon ilaa rasulillahi rek la mu ne bi ma ko joxee lépp nag am na lu ma defal kafaani soo a wa durra wa sakka fegal na may ñaaw téef lu ñaaw lu ne def nañu ma ko waaye bu ñu noppee rek bu pënd bi wuree ma gën a rafeti mbir man lu bon lu ne def nañu ma ko bëgg a jël sama bakkan juróom yetaat yu manqué tuuti ma ànd kook samay noon bàyyi ay noon gannaaw di rombi noon ñii ma jóge néew ma leen ñaanal leen ma maa leen ñaanal ñi ma romb bëgguñu ma xàmmee leen dañoo jàpp ne dañuy or alko ñi ma àndal ni bu ñu ma jekkoo gaañ ma ñi ma jëm ne bu ma ëgsee ñu lor ma ñii ma ànd ak ma leen fu nu jëm néew ma leen nan noppalu jàmbatuma mar jàmbatuma xiif kenn pikiruma naanuma fi kompin ma xoojuma fiy reen kenn musuma foroote kenn ma yeewu ma ciy nelaw monsieur suma ci wànneen kenn duma masa yee ciy jàng wëlbati ko musuma jàng ba gag may bind te musuma gag ñuy defaraat te mu musuma julli di tiim te mu sumaa jamuñ ma dem ba jekkoo ñu tiit dafa ne damay jekkale ma jéggale dellu si waat Sénégal di def la ma doon def kooku mooy sëriñu Cheikh Ibrahima Fall bi ñu tudde bis bii tey moo tax mu ne kafaani su awa dura fegal na ma ay lor mu ne fegal na ma sikki sàkka sikki sàkka ñaan ba xam la damay ñaan ba xam dina am wala duma am damay def ba xam dina baax wala du baax sëriñ Tuubaa loolu musuma dal isaa aw xaraxtu arfa ostu mu nan tóoda saakal arfa bu ma bindee rek mbaa ma jàng araf wi ma bind mbaa ma jàng ko arafa la ko tax a jóg am naa ko ba mu mat bu dee lu may laaj jot naa ci bu dee lu may dàq dem na te dootul dellusi kooku mooy sëriñu Cheikh Ibrahima Fall bi ñu tudde day koo xam ni sëñ bi na ko léegi julli ak woor yàllaa ko digle bu ci mere kenn ki defe ne man na ko na fexe ba sàmmoonteeg julli ak woor julli ak woor dafa am lu ko jiitu jàng la ñu wax atlu ma uhiya ilayka min alkitab la wax jàngal bare waa na ñuy dugg ci jàkka ji wallaay xàmmewuñu farata ak sunna te duñu ko laaj te ilimaan yi ku leen laaj dong lañu ñu bëgg te nag war nañoo xam ni def loo xamul te tey ko ak mooy yàlla la borom Laxdari dani wala yaxilu an yafala fixlan ata yaxlama ukkuma laa fii du dagan benn jaamu bi yàlla di def ci wàllu jaamu yàlla lu mu xamul lu ca yàlla atte dëkk ci julli tey def lu arab nag mat naa mooy ta def ba mu ne ba nga xamee ne xam nga ko nag ba laaj ko laaj nga ko xam nga ko mais am na beneen problème inna salata tanha anil fahsai wal munkar julli day tere def lu ñaaw ak lu ñu sib boo munta bañ a def yu mel noonu booy boo nga bàyyi fi julli jullee ko bis bu ne nga sangu te kiy root sonn te nga gën fee taq day bàyyi root mi moo tax Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridine doo ñuy ku ñuy gam-gamle bu duloon moom kenn du jëriñu Serigne Touba kenn musta mel ni moom li Serigne bi bind ma wax ko jànkat yi dégg ko wiqaayatu tawqiiri wax ir sayxaka waj al usaydan lahu hëb xayraka gën jaam mag gi wegeel bu sëb sëriñ toogee mag wegeel fa gaa yi tàmbalee fa yow Cheikh Ibra bi muy ñëw sëriñ Tuubaa ku mel ni moom fekku ko fa te ku dikk boo deful ni moom amagoo ngërëm doon asgor soppi sa boppam jaam bari doole te doo xeex góor yiw te doo jaayu mën a liggéey am wërsëg loo am dëkk ci gën nga jox ko sëb sëriñ yalwaan dundee loo tooñ ko la tooñ nga jéggal ko fu sëb sëriñ dëkk nga setal ko la fa aajoo nga indi ko fa tey wuti lu ca dolli ko te doo xaar mu laaj ko Cheikh Ibra ko def ba defagul kenn defu ko kon nan bàyyi xel ci ni bu doon Cheikh Ibrahima Fall ko sant Mbàkke dana ruuji te nag du seetal dana da nga ngeen baal ma nag Cheikh Modou Mahfouz maa ngi lay te dina ñaareel nga yàq waaye bu dooloo Cheikh Ibra di ngeen ruji de maa la wax loolu Cheikh Ibra nooyal fépp ñëpp nangu di joxe te ku jëxawul nay nga te am nay du dem àjjana sëriñ bi nag di wiqaayatu tawqiiri wax ir sayxaka waj al usaydan lahu hab xayraka gën jaa màggi wegeel na ko web sub sëriñ te li nga gën leen na ko jox sëriñ bi daal lay laaj nag ci biir dikk biir wax bi daa mel ni Sëriñ Tuubaa day laaj yow loola tax a jébbulu nga ne xanaa pajug aajo mu ne da bëgg sa aajo faju nga ne waaw mu ne la fajal aajo yu sëriñ bi nga ne nu ma koy faje mu ne la waqe de awaa ijjëla o um ma ista bil basli wal xidmati mas tataxta li nga am ta moom ko sàkk ci jox sëriñ bi ci sa teeyug bakkan am nga doole liggéeyalal sëriñ bi sëñ bi mënut a ñàkk mbaar munta ñàkk ab lal munta ñàkk fu mu toog munta ñàkki basang munta ñàkku satala munta ñàkk am ndox yooyu yëpp taalibe yi koy indil sëriñ bi sëñ bi am jotuk mën a jaamu yàlla te sëriñ Tuubaa sëriñ Fallou Mbàkke sëriñ Fallou Mbàkke danoon jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi nag ki gën a màgg ak jaamu te yàlla nangu ko te ñëpp man koo waat mooy Seyxul Xadiim Cheikh Ibrahima Fall ci Serigne Bamba la doon jaamoo yàlla lu sëñ bi ma sa itteewu te nit mënu koo ñàkk rek Cheikh Ibrahima defal na ko Serigne Touba ba fi mu ne moo daan njabootam gi amuñu itte ci lu dul lu ñu diw Mbàkke bëgg na ko ñu bàyyi seen itte ñoom bëggatuñu ko moom ñoom kooku rek lañ ko yóbbu kon loolu bu ñu fekkee dañu am bis ñu tudd ko maam Cheikh Ibra Fall ci bisi sëriñ Touba yi mu jaar ci soxna May man de lii may bëgg wax soxna May Mbàkke ma ko wax. ca Daaru Waxaab ndax dafa am lu nu daje ca Ndakaaru mu kontaan lool gërëm ma ni ma loo bëgg ma ne ko ah man ne Mbàkke ko faj sama aajo la bëgg soxna may ci boppam ni ma Daaru Waxaab nga ko mën a amee ma ne ko ah, kon de kañ lay ñu mu ne ma maa nga fa jëm ca ginnaaw ëllëg sa laa dem fekk fa néeg ba mu recevoir ak fa la mu yóbbu ni ma toogu bi ci la Senghor toogoon moo ma nettali ci làmmiñam daane maa xam nga ne Senghor ku yewwu la te am baatin ma ne ko ah mu ne bi ko sëñ Fallou yebalee fii fi man damaa wut butéelu liminaat ber ko ni ñoom day nee nañu du lekk lu ñu seetul waaye butéel bii de bu ko naanee te seetuñu ko réew maa réew maa ngi ciy loxoom ne ba Senghor agsee ba toog moo yuutul boppam bitéel bi ubbil ko boppam naan ko ni soxna si may ma xott wi dama koy barkeeloo loolu soxna may ma ko ci làmmiñam te soxna may xam ngeen mooy Serigne Touba te jaan amul jigéen ju la ci matt rek lu lu tax nga mucc yow nag moo ci rawoon moom faj na fi aajo ba tey kon soxna euh, sa sëñ Madou Mahfous noo ngi lay ñaanal ci sa darajey wéyjur wi sa darajey maam yàlla yàggal la fi te wéral la